parce que bi ñuy waxtaan léegi ci Guy Marius Sagna may fàttaliku may fàttaliku jàpp yu bari ñu ko doon jàpp tout ça dama xalaat ñaari nit ñu nekk ci kaso bi muy Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne ma gis ni dañu yàgg ci kaso bi honnêtement li ñu leen jàppee sax du dara. ba pare li ñu leen di toppee vraiment lu nit xam la parce que lu ñu wax la ñu dégg ko vraiment c'est pas duñ samay xarit de honnêtement. Euh, Euh, Abdou Karim géey lu nee na may yàq mais grave démocratie la Cheikh Omar Diagne dégg naa ko en tant qu'intellectuel mu wax dara sama livre wax wax ci loo xam ne xamu ci dara te liiru ko mais yooyu yëpp grave parce que démocratie la nekk nit ñi ils sont pas obligés d'accord mais Abdou Karim Gueye nitu engagement la activiste la li mu jàpp ni moo arrangé réew mi moom lay wax te am na ci droit mais attends nee nga am na lu mu warul wax mais ça fait huit mois mais doy na nag. mais li mu warul wax loolu sax ñoom dañ leen fekk ci conférence de presse. di jàppale waaw mais dégg nañ ko bàyyi. jotuñu jotuñu sax wax non non moom dañ ko war a bàyyi Cheikh Omar Diagne nañ ko ah. bàyyi. ñoom ñaar d'ailleurs Cheikh Omar Diagne nañ ko bàyyi. parce que on mën nga ko bëgg mën nga ko bañ mais intellectuel la boroom xam et puis li muy wax daf ko xam nga euh, bi ñu indee seen mouvement ànd sàmm jikko yi. di wax ci affaire homosexualité dafa am benn sortie bu ma def ñoom ñëpp ñu tontu ma mais bi mu tontoo laa xam ne moom rek moo xam lan laa doon wax. c'est un grand intellectuel. xam nga baax na ma c'est-à-dire yi wax nañ lu leen neex xam nga li ma la parce que xamuñu li ma doon wax mais moom bi mu tontoo laa xam ni kii xam na li may wax et domage mooy combat boobu même ñi ci nekkoon di wax ñoom xamuñu lu affaire moom moo ko xam moom. xamoon na combat boobu xamoon na lan moo ci nekk mais gis nga dafa parce que li ñu koy xeexee yëpp loolu ci la bokk il faut dire la vérité ses idées parce que dañu xam ni moom comprendre na enjeu yi ses idées waaw parce que ñi def ñëpp ay ustaad la ñu doon wax loolu l'état le ce xam nga li ma la comprendre nga maanaam xeexu ànd sàmm jikko yooyu jeexitalam dafa bokk ci li tax moom ñu téye ko moom may mun a il faut nga comprendre loolu bu baax a baax a baax waaw Parce que lui, il comprenait les enjeux et les problème et il posait bien les problème ñi des ay ustaas ñu doon wax di wax di expliquer parce que affaire yi aussi du arxuraan de combat politique du arxuraan de comme c'est un gars qui comprend qui est structuré intellectuellement et qui expliquait qui posait bien les problèmes voilà pourquoi moom mu doon gérer. et puis au xam nga lu ma léegi nag léegi nag vraiment nit ki boo ko dencee pendant huit mois. ok empêché ko mu affaire Pastef ñu naan ay prisonnier politique dossier Pastef amul prisonnier politique képp kuñ ci téye y a des faits précis yu ñu la reproché mais loolu il faut nga xam ko noonu non non je sais xam naa li may wax man dof je suis pas naïf non je parle pas waxuma ay ay ay au-delà de Cheikh man xam nga lan laay wax Cheikh Omar Diagne ak euh, nu mu tudd euh, Abdou li ñuy wax wax nañ ko nit ñi dégg nañ ko à la limite c'est du flagrant délit léegi jugé woo leen bàyyi nga leen foofu ba heure bi mais ngir yàlla ak yonent bi nan leen bàyyi ñu ñibbi. nan leen bàyyi ñu ñibbi.